PSD waaye nag loolu nag mu ngi nekk fi nga xamante ne ci ab espace bu yaatu bu nekk wetu Tali Diallo euh, jàkkaarloog li nga xamante ne mooy police Thiaroye ba li nga xamante ne nag moom mooy euh, espace côte bi fi am euh, ginnaaw rek bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne mooy témoin ginnaaw rek ay camion yi nga xamante ne mooy UCG ak ay récupérateur maanaam ay buujumaan ak ñeneen ñi nga xamante ne rek dañuy daal di transformer mbalit wa bu ñu sukkandikoo rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy notable Thiaroye la ñoom nag ñeneen ay camion yi nga xamante ne dañoo waroon rek dem sotti fi nga xamante ne mooy mbëbë su Malika waaye duñ fa dem dañuy daal di rek wàññeeku ñëw fa nga xamante ne mooy caaroy gaar daal di fa sotti ni ni mel te bu du di dégager ñi nga xamante ne ñooy ay vayu wala ay bandi sax yoo xamante ne ñu ngi fa ñu daal di rek aménager seen terrain basket bi ñu bëgg ak seen jardin public moom di bëgg moo tax rek dañoo bëgg rek xamal ni bëgguñu caaroy gaar nekk benn étincelle maanaam loo xamante ne day daal rek Euh, ab révolte gu jóge ci banlieue bi bu ñu sukkandikoo ci le témoin dañ koy jëfandikoo rek ngir daal di daal xamal ki nga xamante ne mooy ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome ku dund rek da nga daal di gis ni ni mel